di jiite tamit ci nuyoo bi sa président Gombe bu ASC Manko di jaajëfal tamit aussi tamit jeunesse bépp mais nag démarche yi moom fi ñu ci toll mooy bi ñuy njëkk a démarré affaire bi euh, préfet dafay ñëw commencé joxe ay sommation bi mu ko commencé joxe gars yi fekk ko ci euh, ci terrain bi ni ko ah monsieur le préfet li ngay def nii de nangam ak nangam commencé expliquer mu xam ne li mën na indi ay détails ñu woote ci dialogue bi ñu ci wootee dialogue monsieur le maire Abdou Karim Sall ci jëm boppam commune bi xamal ko ni ko yow yaay porté suñu combat biñ ko xamalee ni ko yaay porté suñu combat moom si jëm boppam moom moomu tourné dikk dem ci kaw waxtaan convoqué ñu ñun commune bi yëpp ñëpp ñëw teew li may wax nag am na ay preuve parce que vidéo yaa ngi fi demande chef de village bu dëkk bi bu Kamb ak délégué de quartier yi fi nekk yëpp suñu délégué de quartier ñun suñu imaam ak suñu imaam yëpp commune bi ñëpp la convoqué woon mu ni quatre hectares cinq cent yi ñuy wax te mu indi problème bi déjà président Macky Sall waxuma président Macky Sall réglé comme réglé wu ko mais moom dani réglé nañu ko léegi nu moomeelu dëkk bi la. léegi nag bi mu nee moomeelu dëkk bi la bi mu nee moomeelu dëkk bi la ñu demaat tuuti ab diir ñu demaat tuuti ba moom ci jëm boppam moom mu commencé ñëw place publique yi nga xamante ni carrément intéressé na nit ñi mu commencé faa jëmbat ay garab. mu commencé commencé faa jëmbat ay garab pour garab yi sax ba mu gi ni quartier bu ci nekk yow yaa ngi roose say garab pour bëgg euh, bu nekkee terrain bi soxla football boo leen bëggee ker toog ci taatu garab yi wala dara loolu yëpp moom moo ko commencé woon def fii nii ñu félicité woon ci président Macky Sall bu baax félicité ko woon ko moom bu baax a baax a baax man mii euh, neewoon naa ko laal ci Abdou Karim Sall laaloon parce que combat bii mu ñu gañeel kenn mosu koo yaakaar ci kaw suuf ko loolu la ñu convaincre woon mais ndekete convaincre yëpp élection la woon parce que ñoo ngi jëmoon ci élection député yi mu passé euh, préfet di kat ak kii c'est que nag damay expliquer benn affaire pour xamal président Macky Sall ni ko du menace ñun ñu kaso du menace du yox-yoxi du dara loo xamante ni carrément président Macky Sall mën na ko ci mën mënu mënu ko sax ci ñun laay wax man parce que parce que damay wax direct parce que li problème mooy fi ñu nii dañ ñoo yar nag ak i teggin lañ ñu xamee jeunesse su Kër Mbaye Fall jeunesse su Kamb jeunesse su Toldias xëy liggéeyi wàcc ñibbi si seen kër mais lu mat 40 auto police pourtant wa Ngor waa Yoof waa Jàmmalaay dak ñu xex gën ñu ñoo ñeme gën ñu nek ay góor mais nak problème bi moy yar yar moy premier yar ak téggi nak ñun mom lañ ñu yaré ñom néew ma dañoo yare di ko parce que amana ñom sen dimension fofu la tollu mais ñun nak xam nga tay sey bu ñëwé ba police police romb lañ la heure bi yaakaaroon nañ ni war nañ leen a mën ay rek ramasel ñu le non non bu dé ñun ak ñun yéen rek dóorante ay racramasel lu ci am parce que ñun ak yéen c'est la même famille ñun kenn mënu ñoo jaxase ak police kenn mënu ñoo jaxase ak gendarmerie kenn mënu ñoo jaxase ak préfet mais coow li dañ koy duut baram kilifa yi ci dëkk bi ñom ñoo ci am pas de responsabilité bu mag sëkk parce que ñom ñoo ànd ak maire maire ni carrément lii ni ñun ñoo ko moom kon yow monsieur le maire Abdou Karim Sall yow lay waxal direct nga dima ma dégg lan moy sa problème ba suuf si yënguwaat lan mooy problème bi te encore lan moo tax génnaatoo wax ak waa dëkk bi lu ñu mën a dégg. bi ko ñaareel mooy imagine toi tey tey man nag man nag am na jeunesse boo xam te ne nag foofu laay tënkee dama leen di conseiller man ku ma xam ku nekk xamoon ma ak monsieur le maire Abdoulaye Pouy ñu daan ànd bi mu njëkkee laal fii dama dikk ànd ak waa dëkk bi ni ko monsieur le maire suñu ànd maa yow na naka tey béye boo mais jeunesse bi kat commune bi laay àndal jeunesse su quartier bi sama jeunesse su dëkk la mu am moom ko gënal mais ñii ànd ak Abdou Karim Sall gisoo ci benn xale boo xam te tey sey boo jox dékki leen ci micro kenn invité leen reer ni leen ku ma ci gis ci vidéo yi dèjà yow dama lay écarté bu may génn si bu ma sax toppal loolu leader du ko def ñooñu nag ma leen di xamal ni leen ñooñu nag ma leen di xamal ni leen ñooñu nag ma leen di xamal ni leen Abdou Karim Sall dem na Abdou Karim Sall dina dem Ablaye Pouy anamu tey dem na su ma ñaawoo nag sama waa dëkk tey dem ànd joon ak moom di ki di xeex ak ñii kon tay ji nan la def ñoñu lañu ñëw pour sen gox loolu la andi xamal bu baaxa baax ma leen di jaajeufal bu baax baax